mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte àndaat ak yéen ci invité de la rédaction comme ni ñu ko baaxoo di def rek ci 24actu tey jii nag ñu fas yéene amal euh, lépp loo xam ne nag jëm na ci invité bi comme ni ñu ko xamee ci koor gi la ñu nekk ñu fa yéene dalal Serigne Ousmane Diouf nekk jànkatu xasaayit boo xam ne ràññee nañ ko lool ci diggante Touba ak Mbacke wala sax ci àdduna bi ñu fas yéene séq moom laaj tontu ci lépp loo xam ne nag dina soxal askan bi ponk yu bëri dinañ ko fas yéene waxtaane ak moom Serigne Ousmane maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu ñi nga xam ne ñoo lay topp ci 24actu point com waaw maa ngi leen di fay bu baax di leen ziara man tamit di leen nuyu bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan 24actu point com mm-hmm. di leen ndokkeel bu baax ci weer wi. Mm-hmm. di ñaan suñ kàddu fekk leen ci jàmm. voilà mu nekk internet yi nga xam ne ñooy topp 24actu point com am nañ ci te lool euh, fas yéene daal sëñ Ousmane Diouf. Euh, ñu mm-hmm. tàmbalee ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllu politique. Mm-hmm. Euh, saa yit nga boo xam ne ràññee nañ la lool. waaye ndax dañu bëggoon nga dikkalaat ñu sa diggante ak ki nga xam ne nag moo di Idriss sekk ndax mën nga ñu ci indi lay leeral. waaw sama diggante ak président Idriss Seck yàlla dafa dogal muy taalib sëñ Touba. di nit ku baax koo xam ne nitu nitu diine la euh, d'abord parce que euh, jàng na alxuraan jàng na xaside yi mi ngi jàngit sëñ Touba. Hmm. waaw loolu moo waral euh, bu politique beeg yëpp jàllee. moom taalibe la parce que li may def sax. moom man nga yaakaar ne Idrissa ba mu juddoo ba léegi di doog doon nekk nitu diine. Mhm. léegi lay doog doon nitu diine. non non non maanaam ja Idrissa boo ko dégloo xam ne kii jàngoon na alxuraan. Mhm. parce que fi muy waxee ak yow. ak yim lay indil. Mhm. da ngay xam ne kii moom lii toogul ba tey rek mu jàngoon xam nga xam-xam moom doo toog tey tey. yéen doog a nangul. bi mu jë bi mu ñëwee ci sëñ Touba. parce que ñun xam nga nag ñun dañoo am jikko jikko jën am mooy boo nekkul ci sëñ moom duñ duñ leen bët say mbir duñ ko seet. waaye bi mu ñëwee ci sëñ Touba nag ba doon ab taalibe sëñ Touba bi ñu demee mu réservé ñu ñu toog moom mu wax ñu dégg ñu wax jox ko mu wax jox ñu. Mm-hmm. lañ xam ne kii moom. Mm-hmm. maanaam borom xam la taalibe sëñ moo la booleeg moom relation ndax mën nga ci dikkaat boobu. waaw suñu relation. Mm-hmm. ku ñuy wax sëñ Moustapha Ndiagne Cissé. fii ci garas Darou Moussi. Tolier moo dox suñu relation suñ diggante ak moom. parce que damaa yàgg di dem foofu def fa defarlu sama oto. ñuy waxtaan ci yu bari muy sama fans man di ma di ma seetaan di ma topp euh, ñuy waxtaan léegi nag buñ dee waxtaan man ak moom ma di ko xamal ko ne ko daal man daal li ma gën problème bi ma gën a am mu naqari ma daal mooy jàngkat yi daal lu tax buñ bëggee génn mun mënuñoo génn parce que président Wade joxe woon nañ fa benn récépissé boo xamante ne wutoon doon doon nañ ko fa wut daal mais nag mu mujjuloon ant xaw ma nag fu nu mën a jaar maanaam ba dégg ñu ngi ko lijjanti ci président Sall munu ñëw fexe ba mu jàpp ne xam naa daal bu ñu amoon koy mu ne ma waay kaay ma boole la ak suñu waaji ma ne ko seen waajan mu ne Idrissa Seck ma ne ko ah bon mu ne ma waa ci noonu lañ jaare ba ba ba ba ba réservoir ma waaw kon euh, Ousmane bu weesoo coow li la topp ci njàng mi léeg-léeg kon da ngay politique ah waaw bëgg na war na maa politique man situation <laughs> man man citoyen laa di <laughs> waaw. mais est-ce que boo nekkee ci njàngum xasaayit nga njàng mi moom wax dëgg yàlla kenn mënut a tudd njàngum xasaayit te duñ mm-hmm. la ci tudd. Mm-hmm. est-ce du am ñeneen ñoo xam ne xëy na dina am bët bu ñu la xoolee ne kii léegi day business wala day nekk ci yeneen ak yooyu. jàngkat dëgg dafa war a business. dafa war a politique tamit wala. dafa war a politique. Mm. waaw politique moom. Mm. moo gis nga. Mm. zahir foo ko fekk mook baatin ñooy ànd. mais zahir kese kese kese. baaxut. baatin kese kese it baaxul. waaye dañoo gis yenn jànkat yi nga xam ne dañuy ànd ak ñiy politique xëy na ñenn ñi di leen ŋàññi jàpp ne xëy na ñii daal loolu du seen rôle wala alxaside yi ci la ñu war a yem. waaw non mais ñaari ñaari ñaari kii la. ñaari bokkul ñaari bokkul la. noo ko mën a leeralee. jànkat bi nga xam ne. dafa am lu mu bëgg ci réew mi. Hmm. mu wut koo xam ne jàpp na ne kooku moo ko ko mën a jox. Hmm. am na droit dem ànd ak kooko jël ay kartam ak ay fansam dem votel kooko pour bu gañee li mu bëgg moom man ko am. yow bi mooy mooy benn waaw. Hmm. de bi ci des nag mooy. Hmm. ma la bi ma doon wax mooy nga gis ab jàngkat ab politicien. wala koo xam ne jàpp nga ne mën ngaa amee ci moom dix mille francs nga di ko taggal ay maam ak ay nangam loolu ab jàngkat war ko def loolu moom doxul non man loolu man man hmm. man waxuma la sax di la taggal say maam say nangam mais man nga gis di ma gis ci jataay boo xam ne maanaam du jotaay bi ma war a dem moo moo moo yombut. Euh, Idi it mu la recevoir jox la xaalis. non jox ma xaalis wax dëgg yàlla. Hmm, jox ma xaalis yéen a ngi wéyal seen ak lëngoo ci wàllu. politique waaw waaw parce que dama ko waxoon ne ko. damay nitu kàddu man. man su ma ne laa danaa la rey bu subaa boo nga dem jëndi nga jëndi perkaal. te xam ne fu ma mën a jaar danaa la rey. moo tax mun naa mën ko man euh, nitu kàddu laa li ma lay wax moo doon dëgg ci man. li ma tax a jóg ak ñi ma àndal. mooy fexe ba loolu am bu loolu amee liñ man mooy ñaan ak carte biñ am danañ la ko sànnil te effectivement li ma ko waxoon noonu laa ko defee. mooy carte yi ñu amoon ñun. Idrissa Seck lan dem watale jikko ko. waaw mu mu gañe Touba. mu gañe Touba. waaye gañewul nag Sénégal mais nag gañewul Sénégal. loolu amu leen ci mbetteel. non non hmm. parce que euh, yàlla yàlla moom mooy faalu li ma yurit hmm. yàlla moom. Hmm. mooy dogal. ñun ñëpp bëgg lañ am. mais yàlla mooy dogal. xëy na euh, ak président am amagul du président Macky Sall ngi nii daa du daa soobu campagne gagné. Ah. yor yor réew mi. mus amul musta am échec. te Ablaye Wade mii mu mu wóotu nii rek. xool ko dem na dem maanaam tëj nañ ko kaso def na plus de quinze ans xaw ma ëpp na ko sax. soo ko doon président de la république. Hmm. loolu moo tax ñu xam ne yàlla def nañ li ñu war a def yàlla nag da ngay def li nga war a def. Ah. da def li nga war a def. Ah. bàyyi kook li li mu war a def. léegi lan moo tax ngay tudd Macky Sall li ngeen li ngeen di ñaan passeport duñ leen ko may yéen jànkat yi wala. non non non hmm. ñun citoyen lañ. ci réew mi lañ bokk. Hmm. doomi réew mi lañ. Hmm. Macky Sall mooy suñu baay. Macky Sall. kuy doomu Sénégal Macky Sall mooy sa baay. parce que moom moom moom mooy moo moo jaboote. kon ñun li ñu war a liñ soxla moom lañ ko war a wax. moom mi ko moom. mais am ngeen jafe-jafe ndax yéen jànkat yi. waaw non no am nañ ko moom. Mhm. du am nañ ko parce que dañuy dem ñaani du nu may. man dem naa ambassade laa wax. Mhm. dem ñaani visa. Mhm. fekk fa 22 joueurs ñu may leen ci sama kanam laa wax visa. te man mayuñu ma te yow miy jàng xasaay te sëñ ñu lànk bañ laa man mayuñu ma te man liñ may laaj kay yiñ ma doon laaj. muy compte banque ak réservation de hôtel ak. Hmm. Ah, yëpp matale woon yëpp matale naa ko. Hmm. bi ma àggee ñoo ma woone ma am nga complément de dossier. Hmm. ma taale sama oto Touba dem jëli sama passeport. mais ñu ma ñu ne ma li nga expliqué. du nekkul lu pour pourquoi. dem naa bay defar retour recours mën a jëru ko. parce que comme ñoom ay magi jëm lañ gis nañ gis nañ lañ ma doon laaj matal naa ko ba mat sëkk. fay naa lañ ma doon laaj. wan naa leen ne man nekkuma koo xam ne kuy nekk di taxawal la ak yooyu responsable la <laughs> may ñu ma lu ma ci man kon bu ñu la déggee dafa mel ni euh, dafa mel ni ñi yëngu ci geneen wàll gi lañ gën a fullaal que yéen ñi nga xam ne xasaayit ngeen di waaw waaw hmm. bu dee musicien bu demee léegi moom ñi may àndal ñu may ko hmm. am naay xariti musicien hmm. jaxasoo na ma ñoom bu dee musicien ah. bu àndeek ak dix personnes bu àggee ñu may ko visa am na benn benn théâtre kat buy bëgg a dem Amérique du ma tudd turam mais ñun ñëpp ñu ngi koy seetaan ci télévision yi. mi ngi bëgg a def ab tournoi boo xam ne ni États-Unis la koy defee. moo c'est des personnes lay àndal. te ñu ngi ko may nañ leen. may nañ toll baax na ci bu ngeen mënoon am passeport diplomatique ak yu mel noonu. kat koy ñaani visa mayu la ko passeport diplomatique. ko dafa jot waaw li mooy dafa jot. xëy na waaw non jot na. Mm-hmm. jot des fois ñu jox ko ñoo xam ne xëy na yeewuñ ko. parce que passeport dafa am nu ñu koy joxee. surtout diplomatique xam nga lu ko waral. Hmm. ñun hmm. li ñu représenté ci réew mi ñoom moom la ñu xamagut. xam nga li ma la parce que Macky Sall day ñëw tuubaa di gis ñoo xam ne dañ naan ñii ay jànkat lañ. ñu koy maat daal ak di ko yëkkatil ba mu leen di feem mu naan noppi leen may leen ma ma àggale. Hmm? waaw kon mën naa bañ a jox jànkat jàpp mën naa jàpp ne ja ñii seen mbir daa woyof ñi ne mais ñun. problème mu euh, euh, ni su ko waxee euh, éducation. éducation. ki ci mën amul. wàllu yar. non ku nu ci mën amul. Ah, parce que parce que ñun. Hmm. dun ñëw di la dóor ab yar comme la sëñ Tuubaa doon wax naan bii di yaali bilaa bu kaay. Hmm. ñun duñ ñëw di la dóor ay yar mbaa ñuy ñëw di la poñe mbaa ñuy jàpp di yóbbu ci kaso bi ñun dañuy toog tàmbalee jàng léegi. benn waay taxaw jàkkaarloog ñun daan tux wala mu daan naan wala mu takk seen wala mu takk ay jaaro wala nangam taxaw di la nëbbutu bañ nga gis ko. boo la bis boo ko joxee loxo ne ko sama waaye la. bisu keroog la koy bàyyi. kon ñun éducation léeg-léegi nga man tuubal naa ay chrétiens yoo xam ne. Hmm. moom fii may wax ak yow nii xaw ma leen. Ah, yow mii seen seen téléphone dong laa dégg. Hmm. te sama son maam jaaro bii ma ñax ma ñax bii. Hmm. moom lañ déglu ci benn rajo bu ñuy wax Ceeñeer kañ ka leen tuubal ayib Ndiaye la tudd santam la leen jox. voilà. ah. am na ci ñoo xamante ne bi ci beneen tarixa la ñu bokk dañu lay dégg. kii aman am naa wax la. am naa ay boy disco yoo xamante ne bi ne. Hmm. fii lañ daan ne ci dëkk bi di ko toj. di toj dëkk bi. ñax na ñax mélange la. mooy li ngay mélange mooy ni ñu koy jaxasee. mooy ma ñax ma ñax. mais euh. mu ne soxna Dia euh, bu sa baal mooy de ñëpp a ngi dañax dañax. Hmm. dañax dañax mooy ñu ne suba la kori. Hmm. nga déplacé woo sa kër dem marché Ocass. pour bëgg a sa sa sa njaboot ay dàll ak ay yére ak ay ndàngam fukk bi ngay àndal ak contentement bi moo tax ngay maj maji ci nit ñi mm. nit ci kaw nit ok léegi olof yi leer na mais rythme bi nga ko jàngee ak ni koy jàngee waaw mm. waaw rythme bi loolu sama sama parce que waaw ah mm. yow sëñ Mbaye Jaxate moo ne kuy def lu ñëpp di def doo man lu yam fa nu yam ku bëgg raw da ngay def lu mbooloo mépp naan lii jafe na. Hmm. xam nga fi ne li ma ma ni ma la ko mën leeral rek pour mu leer ci sa bopp yow ak ñëpp. Hmm. mooy eh, site internet bi ngeen yor nii. Hmm. bu fekkoon daa yam ci ordinateur bee. du ngeen mën a am possibilité man a invité nit mu toog. ngeen jox ko ay micro camera yi war ko loolu mënta ne. mais da ngeen a xam ne liggéey bu nekk dafa war a am évolution. waaw yow yow sa évolution. Oh, ci oh, oh, ci wolofal yi nga ko jëmee. mais est li nga jàng xasaay yi tamit bari na. lool xasida dong laay jàng. parce que léeg-léeg doo nekk ci bâche boo xam ne xëy na da ngay laaj bâche ba la mu laaj rek nga yëngal ko comme ni ko gars yi waxee toj ko def ko waaw non man nag xam nga man ni may jànge hmm. mooy saa bu ma ñëwee nga soxla ma hmm. su ma ñëwee ci biir public bi ba toog hmm. damay fexe satisfaire ñëpp ki bëgg diglu njàngu mag ñu njëkk ña dama koy jàngal bam daanu ba yuuxu bay bëgg a dee ki bëgg a fecc dama koy fecc loo bu fecc ba tas. ki bëgg ak dégg bëgg bëgg bëgg naa lay lay lay waaye kee dégg damay woy lu neex loo xam ne. da koy enregistré ci portable am mu dem <laughs> mu dem di ko déglu. ci bëgg waaw parce que liggéey ak ñëpp moo jafe. Mm. liggéey ak ñëpp. Mm. dafa jafe comme yow da ngay waaw voilà mm-hmm. ay jamono. Mm. tant nii di teg ay chaise nit ñi di ñëw di toog amul woon. sam papa nee na ma ñun man daanaa dem di jàngi ji. su ma demee jàngi ji ba pare xaaju mburu lan may jox xaaju mburu ak benn kilo kilo dugub. Hmm. ma doxee fa ma doon jàngee wala mu jàgg muy évolu euh, mu euh, waaw waaw évolution am ñu jox la xaalis. évolution nee na ma ñu may takkal ay sareet di ma jël si. léegi daa egsi ma ne ndax dafa egsi ci nga ne Bamba partout ñu jox la xaalis ndax ñi ngi ko doon laam-laamee si diggante sëñ Modou Kara loo koy loo ci non non waaw loolu moom hmm. wax nañ ma ko waxate ko man man sëñ Modou Kara mosuma hmm. ko jox loxo ah baayam nag lañ ma tudde sëñ Ousmane Nooré ne lañ ma tudde mais mosuma jox loxo sëñ Modou Kara kon de jox xam nga xanaa kon kooku moom ma joxuma xaalis d'accord nag doomam man sama fans la sama xarit la daf maa bëgg man. coowal xaalis kon lu koy indi. non doomi sëñ Modou Kara laa. Hmm. maam Thierno moom sañ Modou Kara. Hmm. daf may béggee bu fekkoon may jàng fii day jël ay téléphone am teg ci sama sama sama kanam di ma enregistré. Hmm. loolu ñi ma xam-xam nañ loolu. mais nag musuma am possibilité nuyonteeg sëñ Modou Kara. wala mu di ma jox wala mu di jox xaalis. loolu amul kon coow la lu ko samp coow li. man maa bëgg sañ Touba man. xam ne li may wax lu dëgg la. Hmm. parce que bureau ba mu demoon ca ndar. Hmm. moom dong mooy numéro 4. amul 5 amul 6 ni ko sañ Gana Messere wax abar ki def maa hmm. amul 5 amul 6. léegi sama sa maanaam ma xalaat ci. am naa ci droit. comme man li may liggéey man damay jamay wax nit ñi dama déglu. war naa man wut di wut xalaat. di am xalaat ni ñëpp. moo tax ma xalaat loolu. léegi nag bi bi bi xalaatee way. sëñ Modou Kara waykat la moom xam na li may wax. composé wooy dafa wooy waaw wooy da ngay composé hmm. wooy da ngay composé hmm. léegi nag maanaam comme caméra bi kii bu la filmé réalisateur bi nekk régie ki yore son ak ki kii cadreur baak nangam nangam hmm. ñooñu ñëpp dañuy boole dajale ko fi barab mu doo ko jariñ dara looloo tax may composé yi may composé indi ko mu doon dara mais sëñ Modou Kara man joxuma xaalis voilà pour leeral waaw ah. voilà <laughs> euh, waaye nag wax na am naa ci satisfaction kontaan nga ci loolu waaw ah, am naa ci satisfaction parce que ñu ngi may jox xaalis. voilà waaw. taalibi sëñ Tuuba taalibi yi moom ñu ngi may jox xaalis hmm. bu baax a baax dëgg ñu ngi may jox xaalis voilà ñu ngi lay sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon suñu gan tey invité de la rédaction euh, xam naa waxtaan wi moom neex na mënoon naa gën a yaatu mais incha allah dinañu am temps hmm. euh, yaatal ko jombul café du soir beneen jotaay ñu euh, invité ko ci waaye nag xëy na xataay bi <laughs> xaw ma nag dina ko temps dina ko ko mayam déet waaye kontaan nañu bu baax ci of gi wuy si 24 actu ma bàyyi ñi lay seetaan ci 24 actu waaw maa ngi leen di sant waa 24 actu di leen gërëm di ñaan ñëpp ñëpp di ko seetaan. Mm-hmm. te di ko bàyyi xel. Mm-hmm. te di ko kii parce que dafa am solo. Mm-hmm. site la bu am solo et puis ñi koy bàyyi xel bari na. deuxièmement ay njariñ rek ñoo ci nekk. ay kàngam lañ ci invité di ci invité ay boroomi xam-xam ak ay personalité yoo xam ne du du n'importe qui nga leen di gis. wala fu ne nga leen di gis. kon di ko jàpp di ko suivre bu baax a baax. man nag jox naa leen sama accord. incha allahu rabbi fas naa yéene di ànd ak yéen ci suma ko sama jot di may. parce que tànk rek bi may ñëw. Euh, am naa retard bu bu bari. sama coobare. mais nag maa ngi leen di xamal ne daal. Mm-hmm. jox naa leen sama accord. Mm-hmm. budul tay itam. Mm-hmm. dina doon ëllëg yeneen yeneen yeneen yu bari sax maa ngi ñëw <laughs> jërëjëf eh, jërëjëf incha allah mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon topp 24 actu kon mu nekkoon invité de la rédaction tey nag euh, suñu nekkoon Ousmane Diouf nekk jànkatu xasaayit boo xam ne ràññee nañ ko lool euh, waxtaan nañ ponk yu bëri Cheikhouna Ndiaye moo nekkoon ci caméra bi Khady Niang ci montage bi sant soxna Mame Fatou Kébé soxna Assou ak euh, Serigne Ka ak xam ne nag moo di jax jaxde ak soxna Awa Ndiaye di leen jox di daje incha allah ci beneen invité de la rédaction jërë ngeen jëf